tey nag dama woote une déclaration importante mais balaa may dugg si déclaration bi li may njëkk a def mooy remercier de vive voix le président Bougane Gueye gërëm ko sant ko parce que ay moment difficile ànd nañ liggéey liggéey bu am solo xeexal sunu réew xeexal la démocratie gërëm waa gëm sa bopp yépp sant leen équipe yëpp maa ngi leen di gërëm parce que liggéey nañ aussi avec des moments difficiles liggéey nañ pour suñu réew li may tàmbalee nag mooy ànd boo gis rek dafa am fu muy yem mais nag bu fa yem aussi na rafet man loolu laa gëm parce que ñun ñooy nekkaat ci suñu Sénégal war fi dund décision bi ma jël dafa doon décision boo xam ne su may kilifa parce que wax na ko moom mooy coordinateur mouvement bu am doole bi nga xam ne yor nañ ko ay ati at di def social bu doy ci parcelle commune yi ñu wër ak ci ci biir réew mi Europe di ngeen dégg tout à l'heure coordinateur u Paris coordinateur u Finlande coordinateur u Italie ñoom ñëpp dinañ dugg wax kilifa yëpp taxaw nañ jël décision ma porté ko parce que man may président mouvement bi décision à partir d'aujourd'hui Gueye l'original quitte le mouvement Gamsabop. à partir d'aujourd'hui Gueye l'original se décharge de toutes ses fonctions du mouvement gëm parce que nag qui naa ne xeexu suñu réew bi ñëpp gis nañ ci taxawaay bi ma bokk comité exécutif pour F24 toogal fa gëm de liguer vous bu n'est que le président de la commission organisation mobilisation massification et implantation F24 ci Je faire front pour la défense même fonction d'organiser toutes ces manifestations dans ce pays ne ba boo doon dem plateau sax say mbok say waajur dañ naan la li ngay wax xool et cetera ba ñepp ragalon nañ ne so génnee sax ñu japp la mais teewul lepp dañ ko bravé xeex yaakaar naa nag soo nekkee njiit bu décision jotee quand le peuple appelle après avoir combattu farouchement ce régime il faut prendre la décision attendue par tous les Sénégalais

mais insérer le programme comme comme ça, nous on va continuer nos actions Tu le gardes, tu ngeen gis ay actions sociales tu communies. chaque année nous def une consultation ophtalmologique avec plusieurs consultations avec Paris, on va le faire encore et continuer le travail à travers le pays et à travers les parcelles et les communes